asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen safoo site bi nga xamante ni mooy 24 actu ñu ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di leen béggee di leen siyaare bu baax a baax di leen wax seen émission bi nga xamante ni mooy Bakhiya Show moom lañ ñëw tey di leen ko présenté ku ne xam na ne émission Bakh Yaye Show yàgg ngeen ko rêvé ngeen naan ma Bakh Yaye Show émission bi émission bi tey nag émission bi yegsi na fan lay daw ci site bi nga xamante nii mooy 24 actu site bi nga xamante ni naa la képp ku bëgg xibaar yu baax fi nga koy seetaanee moo tax tey ñu présenté leen émission bii di Bakh Yaye Show nee naa leen Bakh Yaye Show bàyyiwul ki nga xamante mooy tailleur dañuy ñëw ci yow waxtaan a yow bu baax a baax parce que baax yaay subu daf fi nekk juste nee leen amul dara loo xamante ni daf ci metti lépp lu ngeen bëgg rek mën nañ ko waxtaanee ñu daal di koy defee ni ngeen ko bëggee incha allah baax yaay sow mi ngi nii émission baa ngi nii lépp loo xamante ne nii daal bëgg nga mu fës wala waa baax yaay sow ñu ñëw présenté la ko bu aajee ñu ñëw ba ca place indi suñu caméra danañ ko def ci ni nga ko bëggee incha allah képp koo xamante ni nag bëgg nga participer ci émission bi wooteel ci numéro yi nga xamante ni mooy daw ci suuf xale bu baax xale bi yaayam gërëm dina ko présenté kookan la ñu ne koo koy baax loolu dina neex di sama yi ayca